waaye ku ne war naa xam la lay jëriñ ku ne war naa xam la lay lox waaye mënoon na nga sóobu yoonu yàlla di jéem suñu kem kattan di def ndigal di bàyyi tere di bëgg lu te yàlla tax ngay xentu Sëriñ Tuubaa ba xam kan mooy Sëriñ Tuubaa loo ko xentu gën koo xam gën koo bëgg gën koo nangul gën koo fas yéene liggéeyal da ngeen nga góorgóorlu leen góorgóorlu leen bu baax te xam ne yéen wa te leen da ne ku ku dëggal aw ci yoon wa Sëriñ Tuubaa la gàttu ci fii ci dund gii rek laa wax ci dund tey gii góorgóorlu leen góorgóorlu leen bu baax te xam ne yéen a nga ca kaw yoon wa aousu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din wa habli al fatha wa yassir al ulum ليوسطني منك علما يعلم دعوتك الحسنى مع السيادة والحلم والحمل والعبادة زدت لساني نوير جناني سفي الأماني وسد برائي mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi del siwaat ci sunu jotaayu xasida yu ñu baaxoo di ko ànd ak ci jamono yu nekk ci mbokki taalibe yi nga xam ne dañuy sàkku lenn ci jëmmi xasiida yi ñii di ko leeral kem sunu kattan di ci laa birante waaye doonul sax loo xam ne xam-xamam la wala lu ñuy jàngale déedéet waaye laa birante rek la ndax a diinu a nasiya loolu moo tax mu am solo bu ko defee kon ñu ngi ñëwaat ci geneen xasida ci xasida sëriñ tubaay yi gannaaw bañ sant yàlla ci mboolem xaaji cant yi tey julli ci sangu sang yi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne fépp fu aw mbooloo mosoo jotaay ba seen jotaay ba jeex seen jotaay boobee bu fekkee julluñ ci moom pertanga rek la leen di jural ëllëg yomal xiyaam donte ñoom ñëpp bokk nañ tàbbi aljana di ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ko gu wér te bépp naal boo xam ne naal na ko ci liggéeyal maam ju tedd yi Cheikhul Xadim Cheikh Ahmadou am radiyallaahu anhu suñu borom defal ko ko na mu gën a bëggee mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi ñëw ci xasida gu tudd euh, xasidatu Ahmadou Mouhniyane ni yan nag xasida gu siiw la waaye xasid la goo xam ne gu bëri daraja la euh, buñ ko doon jàngat di nettali jëmmi taarixam ndax xasida la goo xam ne gu am daraja la waaye gu am doole la fa yàlla ndax xasida yi yëpp a am waaye gën nañoo amee darajante fa yàlla maanaam tey misaal bu la doon misaalal ci wax jooju sëñ Tuubaa léppam dañ koo nangu waaye am na ci xasaa yoo xam ne dafa gën a ràññeeku ci malool axlaa yoo xam ne jigéeni wóorul ay nii wala aras boo demee da nga ko fay fekk am na ci xasaa yoo xam ne moom jigéeni wóorul ay nii duñ dañ mukk di ko wéyantoo ngir lan sopp ko loolu itam dafa am ci xasaayid yi ci wàllu taarix xasida gi nag xasida goo xam ne sëñ banko bind ci xasida mu bokk ci xasida yi mujj ci ama sayit naa bi karam xam naa ne moog nooru daare ni du ñu sëree lool waaye xasida la goo xam ne buñ ko dee nettali bu yéeme yéeme la bokk na ci ay jaglem ngëneelam sëñ Tuubaa bokkoon na ci juróom-ñetti xasida yi nga xam ne da koo dajale woon moom mi da caa bokk lu demee ne asaabul jënati waqaani ak moom mi ak wajjaxtu kulli lil wa doodi samadi ak yeneen xasida nag képp koo xam ne jàng na ko fexe ba mokkool ko ak lu mën a doon rek na la wóor na la faggul nga sa way jur sa ñaari way jur yëpp faggul nga leen buñ duggee ci seen biir bàmmeel kenn du leen fa laaj te mun mooy mun kër ak nakiir waaye yooyu it faggul nga ko sa bopp kon Ahmadou Mouhniyane dafa bokkoon ci xasit yi nga xam ne sëñ Tuubaa moo ci wax lool moom nag la goo xam ne xam naa ne sëñ bi du romb atum xamsatin muy 1345 te loolu bu demee ci bayit bu njëkk bi dana gën a leer ndax daf caa côté jëmmi weeroo ak atma waaye ba ci weer yim ko bind loolu sëñ bi baaxoon na di ko def ci yeneen xasaayid yi kon xasital goo xam ne gu bëri taarix la wax nañ ni itam loolu sax moo ko waxal boppam duñu wax ne wax nañ na waaye wax na ci biit ne xasida gi bi mu sottee maanaam malaayika yi dañ ko doon njëkkalante malaayika yi nga xam ne ñoo yenoo aras te mooy euh, juróom-ñetti malaayika yooyu nga xam ne sëñ Tuubaa wax ne ku mokkal seen tur doo dem safara te bala de ñi wan sa jékkuwaay ci aljana mu wax ko ci Mawaahibul Quddus malaayika yooyu nag nga xam ne ñoo yenu jëmmi aras dañoo mokkal jëmmi xasida gi kon xasida gi xasida gu am daraja la te mooy war fanle arsika walil kursi nasmiya haasa bismikal qudsi kon bayit bi moo ko indil boppam ci biir nga xam ne bayit yu mel na foo ko gisee ci xasida rek day tax ne jëmmi kuy ñaan waaye fekk na la amoon la la tax mu bind ko mel ni kuy ñaan maanaam loolu teggin la ci xeeti fànn bindin yi loolu moo waral mu bindee ko noonu kon xasida gi xasida goo xam ne gu siiw la ci lawul axlaa ñoom ñëpp dañ koy jàng bu siiw la ca aras ak mboolem gaa yàlla yi jege yàlla yëpp xasida gi dafa siiw ca pays yooyu ñi di ko jàng boo koy jàng fi itam kenn du la laaj ci sa biir bàmmeel kenn du laaj sa ñaari way jur ci biir bàmmeel kon xasida gi loolu rek doy na daraja ak ngëneelam loo xam ne mën nañ ko ci yóbbuloo nettalee ko ci xasida la goo xam ne nag kon na ma ko waxee rek bu yeggee ci bayit bu njëkk bi dana leer kon bu ko defee mën nañ koo tàmbali euh, ci lu gaaw di ko dawal ndànk-ndànk mu ne bismillahi rahmaani rahim bismillahi maa ngi tàmbali sama xasida gi ci turu yàlla arahmaani buur bay xéewalaa kon bépp mbindéef ci àdduna arahim buur bay ajiram ku ko soob ci àllaaxira mu ne maa ngi tàmbali sama xasida digg ci turu yàlla nga xam ne dafa jëfandikoo digli yonent bi alayhi salaam mu wax ne bépp mbir mu am solo mu ngeen di tàmbale te tàmbalee tàmbaleewu leen ko ca bismillahi rahmaani rahim mbir moo barke du ci nekk mooy du am barke day xuuñ am bu ne foofu wa abutar am bu ne aji sam am foofu wa aqaton waaye lam ca rek mooy ëy naaqisul baraka mooy barke bi day wàññeeku kon looy tàmbalee tàmbalee ko bismillah mooy bark bi day wàññeeku waaye itam yàlla mi nga xam ne mooy koy xéewal bépp mbindi fi àdduna ñu koy weddi ak ña nga xam ne dañ koy jaamu ñëpp ci am xala ay bàyyi wax day yi waaye yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmande ja nga xam ne moo koy jagleel ñu ko doon jaam fii ci kaw suuf yàlla na digléegi yonent bi sallallahu alayhi na sax yàlla ndax xalima gu bindi gu njëkk bind ci loolu moom fa bismillahi rahmaani la njëkk binde waaye roy na def na ko ngir roy mboolem gaañu baax ñi waaye roy na ko ngir alquran ndax alquran saar wuti ji rek bisimilah rahmaani bisimilah rahmaani la muy tegtal rek mooy jeexal nga saar dalaat aw saar bisimilah rahmaani ngay tàmbale kon loolu rek day tegtal ne bisimilah rahmaani boo koy tàmbalee lu am solo la ci xeetu mbind. ba tey rek gannaaw bu nga xamee ne digleeg yàlla la jëm bu bay ko ci yonent bi rek bu bay ko ci yàlla yonent bi la jëm bu bay ko ci yonent bi ci yàlla jëm gis nga ba tey mu ne wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ngir lu suñu borom wax ne man yàlla man ak samay malaayka ñi ngi sax dàkk di julli ci yonent bi kon yéen ñi gëm dee leen julli ci yonent bi te sëlmal fu ne ndigal loolu dafa xamle ba noppi digle loolu ñi di ko def moo tax saa yu tàmbalee ci bismillah rahmaan rahim rek julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci lay njëkkee moo tax mu ne wasalla yàlla na doolu xil alaaw yàlla ala sayyidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turo mooy muhammad wa ala ali ànd ko waa këram ñëpp bi ak saabaam yëpp wasallama tamu dolli ko wóolu tasliman dolli ko wóolu mu ne yow yàlla yàlla nga dolli xéwal mooy julli rek ci kaw kii nga xam ne mooy sunu sang bi mooy sangu lu yàlla sàkk lépp waaye turam mooy muhammad ndax waxoon naa leen abdul mutalib moo ko ko tuddee mooy koo xam ne dañoo sant lépp mooy ismu mafool waaye nag salaatu bi ba mu yem ci muhammad moom rek mi nga xam ne mooy suñu kilifa waaye na ba ci waa këram ñëpp ak i ay saabaam ñëpp te nga dolli ko wóolu fu mu toll moom kon julli na ci jëm yonente bi alayhi salatu commencé ñaan ndax xasida xool Euh, xasida ak salaatu la waaye ñaan moo ci ëpp xasida ak salaatu la ak ñaan ak cant ndax xasida yëpp mu am na cant waaye xasida ak salaatu la ak ñaan ak cant xasida ga ñetti euh, taxawaay yi la taxawee mu ne waccal wa jaxala yàlla na nga def fekk sax def na ko jaxalta la wala jaxalta nii wa jaxala yàlla na nga def xaasil xitmata bii xitma kon xasida gi moom jëmmi xitma la ko tuddee nga xam ne lu gën a rëy xitmaam sëñ tubaa amut li gën a rëy xitmaam sëñ tubaa rek amut ci kaw suuf sëñ Tuubaa lu mu tuddee xidma rek amul lu ko gën a ko a kawe amul lu ko gën a yëkkati ko moo tax kon tuddeewu ko jëmmi xasida waaye xidma sax la ko tuddee waaye tur la rek ci turu xasida yi muy xidma ngir lan liggéey bi muy liggéeyal yonent bi alayhi salaam mu ne wa jaala na nga def xaasiyil xidma te bii liggéey ah na nga ko def bu saaraatin muy mbégte muy ay mbégte nga xam ne da ko itilaax da ko boyal moo tax mu ne bu saaraatin muy ay mbégte na nga ko def muy ay mbégte yuy tasaaroo wala saatin ak i bànneex loxoo ñexel jëmmi yonente bi alayhi salaam mu ne na nga def jëmmi xitma bi muy liggéey bi muy xasida gi muy mbégte muy tasaaroo ànd koog bànneex waaye nag ñeel kan jëmmi yonente bi alayhi salatu salaam kon xasida gi saa yoo koy jàng na la wóor na leen yaa ngi yëg loo yonente bi salatu salaam ak kontante ak bànneex ak mbégte mu du dagg saa yoo koy jàng rek na ngay béggee na la wóor na yonente bi alayhi salatu salaam ma ngay béggee lu raw loolu kon xasida gi sëñ Tuubaa waxal boppam ci tarjumaan ji de ah, bind yonente bi da doon di ànd ko bànneex ànd ko muñ waaye nag ànd ak moom ndax wax na ne bi bindee xasida gi yónent bi mi ngi ànd ak moom te loolu dañ ko wax ci bayit bu njëkk ba buñ ci yeggee yàlla na dool yàlla taala yàlla miy aji ko ko wóolu julliwaat na bi ndax saa yu junjee yónent bi rek mantu ñàkk julli ci jëmam ja jëmam ji tedd ñaanal ko yërmande borom bi tabaaraka wa taala mu ne tey yàlla na def ba tey xasida gi fii kulli saxin bépp weer maanaam mu doon loo xam ne day bégloo yónent bi ànd ko bànneex na nga ko def bépp weer rek yónent bi di bég te ànd ko bànneex nga xam ne ku koy jàng itam noonu lay mel ci jëme yonente bi xataa yaddaku la nga xam ne waxeda daxalis ko àll mu tuqoona way ragal ñi yàlla ñëpp mu ne maa ngi lay ñaan nga def xitma bi muy mbégte muy tasaaro ak bànneex di sotte ko ci kaw yonente bi alayhi waaye loolu bu mu dakk mukk weer ba ba may tàbbi ne yàlla ko ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla kon suñu toog moom garantal na boppam ne moom aljana la jëm waaye garantal na itam ñi nga xam ne dañ koo topp xam le ne ñoom ñëpp aljana lañ jëm kon engagement yooyu Sëñ Tuubaa rek moo ko ñeme kon ba ba may tabbi aljana waxut maa ngi ñaan yàlla tabbi aljana ba ba may tabbi aljana yàlla xasiida gii di ahmadu muxniyan na nga ci jural li yonent yi mbégte ak i bànneex sotti ko ci kawam ca weer wu ne ba ba may tabbi aljana ji nga xam ne yàlla da koo dëgal ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla aljana kenn dafa dugg te ragaloo yàlla kon ragal yàlla mooy maye aljana mooy yóbbu nit ñi aljana te loolu sëñ Tuubaa moom mooy jëmmi ragal yàlla ndax mooy kondaayu ragal yàlla waaye mooy saw bu saw bu mooy malaan ragal yàlla mooy ko woddoo mooy ki ko sangoo mu ne ba tey wakkat ba yàlla na nga bindal loxoo ñeel yonent bi xan lii yàlla na doole nekk ci yonent bi asalaatu dolli teral wasalaam ak dolli wóolu fii ci xitma bi fii ci xasida gi na nga ko ci bindal gannaaw ba ma ko bindee ba mu sotti na nga ko ci bindal maa loo xam ne laa yaxlamuhu du ko xam mu ko xayruhu ku dul yonent bi xoolal lu am doole lool na nga bindal jëmi yonent bi dal di julli ci yonent bi na yàlla na nga dolli xiwal ak wóolu ci moom yonent bi waaye nag na ko bindal loo xam ne ku dul yonent bi doo kon mbégte bi mooy kenn xamul ko rek ku dul yonent bi mënoo xam mbégte mbégte ma nga xam ne bi sëñ Tuubaa sottile xasida gi bind na xasida gi maanaam am na ko ci kon kenn mënu ko ko ne bindal bi xale yi ko ci xitma bi maa loo xam ne laa du ko xam xayru ku dul yonent nga ko yonent bi tama sàkk ko ci yow nga xam ne kenn du ko xam ku dul yonent bi mi maa yesuru na nekk lépp loo xam ne da koy bégal rek waaye yan faxoo te koy jëriñ maanaam lu koy jëriñ te di ko bégal xam nga ñaar yi ñoo am mbégte ak njëriñ nit ki bu amee njëriñ am mbégte rek fu mu toll mën naa nekk ak nit ki mën naa nekk ak yàlla mën naa nekk ku ne waaye bu ñàkkee mbégte ñàkk njëriñ rek mooy ñàkk na lu ne man yàlla sax mën na ko xañ jëm yërmandem moo tax ma ne na nga koo bindal moom yonent bi alayhi salaam ci xitma bi muy liggéey bi muy xasidi gi loo xam ne kenn du ko xam ku du moom waaye loo xam ne da koy bégal képp te ko jëriñ te wala yummalu du yoqot mukk moom yonente minhu ci liggéey bii minhu ci xasida gi lam ci jub rek mooy ki koy jàng wala moom jëmmi sëñ bi wala moom jëmmi sëñ bu bind xasida gi maanaam wala kii yëkkati xasida gi tey na la wóor na la ne maanaam yonente bu mënoon yow doo bàyyi jàng bi yonente bu mënoon yow doo bàyyi jëmmi jàng mi ngay jàng xasida gi yonente bu mënoon bëgg sax da ngay jàng xasida Ahmadou Moukhtar rek nga xam ne du ci yokkot du ci yokkot du ci doylu yokkot gi mooy la koy bégal da ci yokkot waaye du doylu itam ca njëriñ la nga xam ne jamono ji ne kon boo koy jàng na la wóor na yaa ngi jëriñ yonent bi yaa ngi bégal yonent bi te jëriñ góob nga koy def ak bégal góob na la wóor na la du mos a yokkot du ci mos a doyal nga xam ne kon xasida Ahmadou Mouhniyane xasida gu yéeme la wax nañ na sax xasida gii di Ahmadou Mouhniyane kenn du ko tëkkaleeg Nuuru Daarayni te Nuuru Daarayni xoolal dara bi mu am wàccuwaay bi am wàccuwaay bi mu am kenn xamul ko moom Nuuru Daarayni xoolal tey si roncé wàccuwaay bi am waaye xoolal Jaalibatu Maraaxib tey lu luñ la ciy wax ak wàccuwaay bi la muy rëy rëy nga xam ne ak lu mu yéeme yéeme yéeme yéeme ah Ahmadou Mouhniyane moo ko ëpp doole Ahmadou Mouhniyane wax nañ ne maanaam képp ku koy jàng na la wóor na foo tëfli tëfli nga ci kaw yonente bi salaay salaam ndax yonente bi ngi toog ak yow ndax du yokkat ca jàng du doyal ci jàng da moo tax mu ne loo xam ne du ci yokkat mukk ci xidma bi waaye wala yustaxnaa déet muy doylu xaan ko wëlis ko abadan ci luy sax dafa kon yonente bi léegi moom du ci doylu waaye du yokkat yow mi jàng Ahmadou Mouhniyane kon na la wóor na yonente bi doylu bëggul nga bàyyi sa njàng ma waaye itam déglu ba nga koy déglu du ko yokkat nga xam ne kon maanaam jëmmi yësuru maanaam yummalu day dellu ci yësuru waaye nag wayaan faxon wa day dellu ci walaa yustaxnaa nga xam ne kon yokkot gi mooy la koy bégal da ci du ci yokkot waaye nag la koy jëriñ itam nga koy bégloo te lii du ci yokkot moom yeneen waaye du ci doylu itam wëlis ko moom liggéey bii nga xam ne ku koy jàng ak ku mën a doon rek abadan ci lii sax ba foofu nga xam ne kon jëmmi yeneen moom du ci doylu waaye du ci yokkot kon mbokk yi nga gis na kon tarjumaan la joo xam ne buñ ko doon topp tarjumaan ju ama am solo la waaye ju kawe la ndax xasida bu ne lay wane martabaam ak kaweem mooy tarjumaan ji léegi-léegi sëriñ sëriñ bi da ko ciy bindal boppam te lii moo ko bindal boppam ci jëmmi tarjumaan bi kon yéen ñëpp ngeen bàyyi ci xel war cee jàngatee lu bari nga xam ne Sëriñ Tuubaa daal cooy rek la tudd cooy rek la tudd waaye amul morom kon xasida gàngoog mu tàmbalee nag indi na tarjumaan ji ba mu tàmbalee jëmmi ahmadu muxniyan xam ngeen ne xasida yi am na ci yoo xam ne sëñ bi day tàmbali rek di sant borom bi tabaaraka wa am na yoo xam ne du aajoo sant waaye bii moom bi mu indee tarjumaan ji ba noppi indiwut alhamdulilah te xasida yu bari dangay gis mu naan alhamdulilahi alkarimi si li man nan wala bismin illaahi wala mu ne alhamdulilah aqil mu diin yu mel noonu nga xam ne tàmbale bismillah waaye xasida gi moom dafa yii xasida gi ahmadum xuniyaan geneen xasida la la ma la wax rek nooru daare ni li muy yéeme yéeme tay siiru asir euh, mafaatiwul bisri ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ak xasida gi lu muy ndaw ndaw ahmadum xuniyaan moo leen gën a yéeme loolu nag la ko waral mooy sëñ léppam la yàlla nangul moo tax loolu laal ci moom rek loolu moo gën a kawe la nga laal ko sëñ Tuubaa ko yéeme la kon xasida gi baxru bi baxru rajas la mooy juróom benn mustafxelun yi mustafxelun mustafxelun mustafxelun ahmadu muxniyan taxaala an sinna mustafxelun mustafxelun mustafxelun wa kaana li bi kulli saxrin wa lii mooy jëm jëmmi kon li nga xam ne moom la ko ci baxru rajas mooy juróom-ñaareelu baxru comme ni ko xalil ibnu ahmad alfaraidi tegalee safi diina kon waaye nag xaafiya bi la muy daanoo mooy bayit bu ne baxru rajas bayit bu ne maanaam day daaneel boppam lu mel ni mu ne ahmadu muqten taala an sinna wa kaana li bi kulli saxrin wa sanna xaatatoo fil bari wal baxru fii sirri wal jëxri maal haadi wëf yi kon soppi na ndax fee na la waxoon sanna fii mu ne wëf yi wëf yi nga xam ne kon loolu mooy lusoo malayel sam lu ci bëri la moom it na zanna na yi wëf yi loolu mooy lusoo malayel sam nga xam ne loolu la biree ci xasida gi kon moom dafa mel ni léppam mostu dañ di ko kii yàlla waaye doyloo ci boromam rek sunu borom dane léegi dañuy indi ñaari laaya ndax laay yi bëri nañ sax waaye dañu indi ñaari laaya rek ngir tijjee ko jëmi xasida gi suñu borom dana yaa ayyuha naasu antumul fuqaraa ilallaahi wallaahu wal ganiyul nit ñëpp yéen nit ñëpp way ngeen jëm ci yàlla te yàlla kat xaajoowut jëm ci kenn ndax ku doylu la ci boppam waaye ku ñu sant la ci mboolem meloom yi am fu muy wax yonente bi ne ko alam yaatikum nabu'u llaziina kafaroo min qablu fa saaqoo wa baala amrihim wa lahum azaabun aliimun zaalika bi annahum kaanat taatihum rusuluhum bil bayyinaati fa qaalu abbasurun yaxduuruna fa kafaroo wa tawalaw tax wastaxna allahu da xaniyun amidun nga xam ne lam da wax rek mu ne ko yow ndax yow yonent bi ndax dikkalul la soloog ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon weddu bañ weddee seen yonent ya man yàlla maa leen buggal ñoom ñëpp la waraloon ñu weddi mooy yonent yi ñu yónnoon ci ñoom ngir ñi waar leen ba leen yonent yi dikk leen ak indil leen ñu ne ko ah fa qaaloo abasiroo yax doon naa ndax ñun mbindeef rek danañu gindi ñu teg ci yoon si siraata mustaqim déedéet fa kaffaroo ñi weddi ñoom ñëpp wa tawalaw ñi dëddu walis gëm yàlla waaw wa tawalaw waaye wastaxna laaha wallahu am amidun moom mu doyloo yàlla xam na yàlla mooy ko géejal waaye mooy ku ñu sant ci mboole melo bi kon yonent bi dafa doyloon ci borom loolu sëñ Tuubaa da ci roy yonent bi saaxiran wa baatinam moom it dafa tàmbali rek ne ahmadu ahmad nga xam ne turam la ci jublu mux ni yan aji doylu loola ci borom ba nga xam ne taxaala kawe na moom borom boobu xanisin na walis muy gëmmintu xam nga dafa jël léppam jox ko yàlla xam ne yàlla rek mooy ko géejal yàlla rek koy joxe keneen du joxe moo tax ma ne ahmadu mu jublu ci moom jëmmi sëriñ bi mu ne mux ni yan aji doylu loola ca boroomam ba nga xam ne taala kawe na moom borom boobu xan gin na walis muy gëmmintu yàlla laa tàq soo sinnatun walaa nooman gëmmintu du ko jàpp sàkkaa nelaw ndax ku dul gëmmintu doo nelaw nit balaay nelaw gëmmintu yàlla nag loolu yëpp dafa jomb ca mustahil la ca jëmmam ja wa kaana moom yàlla nekkal na lii ñel ma bi di kulli saxin ci bépp weer wa ak nee na ahmadu ku doylu la ci yàlla mi nga xam ne kawe na walis muy gëmmintu waaye nee na yàlla moom nekkal na ma ci bépp weer ak at nekkal waxoon naa leen ne loolu danga koy misaal ci bindee fi koo xam ne foo jaaxlee moo la fay génn buñ la tëjee koso mu joxe xaalis nga génn njot la sëñ Tuubaa noonu la meloon dafa nekkoon ak yàlla xaritoog moom ba xam ne keemaan la nga xam ne buñ la koy misaalal ci bindee dañ la koy léegi-léeg tey nga am xarit boo xam ne bu nga fonk la ngeen fonk te yéen ñaar wóolu wante ku ci am njàqare sa morom taxu ko lu mu xew la nga dem sëñ Tuubaa noonu la mel ak yàlla waaye bi mu waxee ne yàlla nekk na ma ci bépp weer ak at daf caa côté at ma maanaam ba ca weer wam bind xasida gi xasida gi mi ngi ko bind ci weeru rajab ak saxbaan fu ne bayit bi saxbaan la fi tënk boo jëlee siinuk saxrin ak taala muy xay ndigal góog mu jox la së ak baax ak dikkul li ak lig gu doog wakkaana ak nuun ak wakkaana mu jox la sëx baan kon wax na weer wu ko yàlla nekkal waaye ba ci at mi sax da ngay gis ne tudd na ko fi maanaam loolu nag suñu gëstu bopp la ba ci rajab tudd na ko fi ndax diggante rajab ak saxbaan ci la ko bind ndax booy xool xasida yi yëpp ci diggante rajab ak saxbaan ci la ko bind booy xool xam xamsa sin indi na ko fi boo jëlee alkubeeruk saxarin gi bi mu ne yàlla nekk na ma ci bépp yor ak at léegi mu ngi xam ne ban at la ak ban weer la alkubeeru saxarin gi ak miimug muxniyan gi mu jox la xam nga jël siinug sanna gi mu jox la xam sa nga jël siin su tooy ak saxarin gi mu jox la xatum wam sa jël siinug sanna gi mu jox la xam sax nga jël siin su tooy ak saxarin gi mu jox la xatum wam sa sin xatum xam sa sin kon mi ngi bind xasida gi ci weeru sax baan ca atum xam sa waaye nag ak weeru rajab kon nga xam ne kon bi mu ne yàlla nekkal na ma rek dangay ngay xam léeg-léeg bu waxee ne waxante nag yàlla wala yàlla nekkal na ma da koy côté maanaam ban at la nekk la ko yàlla nekkal wala ban at la doon waxante ak yàlla wala ban at la doon di la doon diyaale ak borom moo tax ma ne ahmadu ahmad moo ne yan aji doylu loola ca boromam ba nga xam ne taala kawe na an na walis ko yàlla rek la jublu yàlla rek la doylul yàlla rek lay ñaan yàlla rek lay tàllal ak loxoom yàlla rek lay jàmbat ak loxo dem yàlla rek lay jàmbat ak tumurankeem waaye yàlla moomee wa kaana nekkal na lii ñeel ma bi kulli soonin ci bépp weer wasan ak at te mu jox la atum xam xamsasin ak weeru sax baan kon nga xam ne suñ tuwaa ku la léegi nag li lay gën a firndeel loolu nañ ñëw ci baytub ñaareel bi sëriñ bi ne xaatabtuhu fil bari wal baxri wa fii jirri wal jëxri maa la aadi wa fii li lay tegtal ne ba tey ci gannaaw géej gi la atum xamsasin bayit bi da koy gën a mu ne xaatabtuhu waqante naa ak moom waqante naa fu ne indee bu jëmmi tur yàlla dëgg-dëgg waaye dana doy luloo naa ca yàlla rek yàlla mi nga xam ne kawe na nga xam ne xeetu melo mi lay indi waaye nag mu ne xaatatoo waxante na ak moom yàlla fil bari ci biir jéer ji kon mi ngi ci biir kon fu ne mi ci biir jéer ji la ko bindee kaay wax la benn secret gis nga xasida goo dugg gis Sëñ Tuubaa naan fil bari ci biir géej gi ko bindee boo dugg ci xasida gis mu ne fil bari ci biir géej la ko bindee fu ne lu tax mu def fil bari arafu jaru fii moom indi moo tax kon ci biir jéer ji la bu fekkoon ne ci biir géej gi la ko bindee danaan fil bahri wal bari gis nga gis nga wala xad karam naa fil bari wal baxri da koo fekkoon foofu ci jéeri ji moo tax ma ne fil bari wal baxri risqan wa tuklaana foo gis sëñ Tuubaa ci biir xasida gi rek muy tudd fil bari jàppale ci jéer ji la ko bindee foo gis muy tudd fil baxri rek ci géej gi la ko bindee nga xam ne noonu lañ ko texantale léegi mu ne xaatatoo waxante naa ak moom yàlla fil bari ci biir jéeri ji wal baxri ak ci biir géej gi kon booba bàyyi ko na ca géej ga waaye nag wa fii sirr ci lu nëbb wal jëxri ak ci lu biir wax ak nag yàlla ci lu nëbb ak ci lu biir nu ne fànn lu ne fan ak lu nëbb yëpp waxante na ak moom waaye nag ba may waxanteeg moom mahal haadi yi maa ngi ànd ak yonante bi nga xam ne mooy aji gindi gi al fii mooy aji matal kóllëre gi mooy ki nga xam ne ku am kóllëre la tudd fii ci kóllëre mu ku ta àndatoon ak yonent bi ci tukki bi ba muy dem atu wam si dafa ànd ak jëm yonent bi alayhi salaatu salaam xam ne kon yonent bi matal na kóllëre gi lépp léegi fii booy xool ba tey waxante gi léegi day côté jëmmi bat bi rajab la lay jox boo jëlee fil bari raa gi ak baaxu bari gi ak baawu bari gi ak jiimu jëxri moo lay jox rajab kon léegi indi na jëmmi sax baan indi na jëmmi rajab waaye indi na xam sa sin gin bind xasida gi te loolu dañuy bañ sax jotaay bi di yàgg waaye ay yeneen secret ba ci bis yeeg lépp de sëñ Tuubaa da koy dëxañ ci biir nga xam ne lu yéeme la kon bi mu waxee ne dooy lu naa ci yàlla mi nga xam ne kawe na di walis gëmmentu nekkal na ma ci bépp weer indi na weer wax sax baan nekkal na ma ci bépp at itam indi na at indi na at mata at mooy atum xam sasin te booy xool sa sëñ Tuubaa buy teglante jëmmi rajab di ko daggate ci ay tur yàlla wala ay xaraf da ngay gis ni soxbaan lay njëkk indi gis nga ci jaalibatu maraqib dim ne wa biye basir kulla haamin wasanna man bi yuridu man taala an sinna dog cee teg wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mu taalee ni wàcc rabbi fi ni ku nekk xam ne ne moo jiitu rajab waaye nag buy indi moom soxbaan lay njëkk indi dog cee teg rajab dog indi bu fekkee da koy daggate noonu la koy defee nga xam ne ku yéene la ku xarala ci wàllu bi nag moo tax ma ne xaatabtoo waxante naa ak moom fil bëri ci biir jéeri ji kon ci biir jéeri ji la doon waxante ak yàlla ci ma nekk ci géej gi biir waxante ga maa ngi àndatoo nag aji gindee ji alwa fii ki aji matal kundre nga xam ne ne ko ba mu paree fa qultu ma wax ne yow yàlla ci biir waxante ga moog yàlla lay wax léegi nag fa qultu ma wax ko na ko ma wax ko na ko yaa rabal wara yow yàlla muy borom bindee fi yaa rabanaa yow sunu borom yaa rabanaa yow sunu borom yaa rabanaa yow sunu borom yaa rabanaa yow sunu borom ci biir waxante gi bi ñu waxantee man yàlla ba pare mën a ko yow sunu borom yow mi sàkk mbindeef yëpp te moom leen te bokk koo kenn woo ko ci juróomi yaa rabanaa te waxoon naa leen ko mooy juróomi yaa rabanaa yi nga xam ne ñoo nekk ci jeexantalu suratu al imraan moom lay indi rek di ko delloosi ndax boo xool xasida yëpp sekk rek yaa rabanaa yoo da cee moo tax mu ne yow sunu borom yaw sunu borom yaw sunu borom yow sunu borom woo yàlla nga xam ne da koy màggal di ko kañ di ko bakk nga xam ne bu fekkoon ne yàlla danga naan sëñ Tuubaa bu yëkkatee baat yi jëmee ko ci moom rek yàlla day bég day kontaan ba lépp loo xam ne ñaan na ko rek fa la da koy daal di may kon loolu lu mat a bàyyi xel la ba ba tey mu ne sëlli yàlla nga doolu xéwal salaatan xéewal goo xam ne faa iqa aji kawe la kulla salaatin bépp xéewal waaye laa iqa xéewal googu aji dajee laaj nga xam ne mooy njiit te jëm yonent bi alayhi salaam bi mu yàlla na ko wax naa la yow yàlla mi borom bindeef yow mi nga xam ne yaay sunu borom yow mi nga xam ne yaay sunu borom yow mi nga xam ne yaay sunu borom yow mi nga xam ne yaay sunu borom yow mi nga xam ne yaay sunu borom da ko dal di woo na ko salli salaatan salli yàlla nga dolli ko salaatan xéewal goo xam ne faa iqa aji kawe la kulla salaatin bépp xéewal waaye laa iqa aji dajeeg laaj moom xéewal goog di raisin kii nga xam ne mooy njiit te mooy yonent bi alayhi salaam nga xam ne faa iqa mooy baatab fàq rek mu ngi bay ko ci baatab fàq laa iqa mu ngi bay ko ci baatab laaq guy tekki daje na yàlla noonu yàlla defal diggal topp ba ñu ñëw gën cee leeral incha allah jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu